Touba quincaillerie général mu ngi fii ci cité Kër Damel bu dee da ngeen yittewoo lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi ñëw leen fii Touba quincaillerie générale mën ngeen leena a seeti tamit ca 84 ak ca 65 rue Ngalandou Diouf Touba quincaillerie générale mooy ànd ak yéen ci waxtaanu ajjuma yi am fii ci Touba Aliya bokki <clears throat> jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam tomb bi ñuy fas yéene fàttalante dafa aju ci euh, mbir mu tasaaroo yaatu lool dugg ci sunu jaamu yàlla ba neexatut xàmmee ak moom waaye dugg ci suñuy jëflante it ba jëflante bu rafet neexatut xàmmee diggante nit ak mbokkum nitam rawatina nit ak mbokkum jullitam tomb boobu waroom euh, xam-xam yi nee nañ mooy benn ci bakkaar yi nga xam ne yàlla nee na du ko bale yàlla noonu ci yàlla musal waaye it dañ ko nuróole ak damm damm boo xam ne kum dal dootu wér yàlla noonu ci yàlla musal tomb boobu di dal nit ba yàlla du ko ko baal bu ko bu doxee seen diggante mook yàlla bu dee damm damm la boo ko dal ci yaramam xamkatub yax moo ci yam ak xamkatub sidit eh, yàlla àtte na ba noppi ni muy def eh, ku ko doxale digganteem ak moom nee na du am fii ci àdduna dara tey bokk yi ku ñàkk àdduna ñàkk na àllaaxira ndax àllaaxira ci àdduna lay baaxe mooy jëf joo xam ne nit daf koy jëfal yàlla daal di cay rax dara nag loo xam ne da koo mbakkur fegg da kaa mbakkoor feggu day jox yàlla lii téye lii yàlla noonu yàlla musal ca lool moom lay wax ci alxuraan ne yàlla mën na jéggale lu nekk ba mu des nit xëy ne daa jëm ci yàlla tax koo xëy wala mu tax koo rañaan rañaan boo ko déggee mooy jóg xaaju guddi wala mu tax koo jànq ba yàlla di ko yàkkaw li ko di ko séentu waxin la mu am fu mu jàdd ba ba muy ñëw fa suñu borom àndaalewu fa dara ca la yàlla doon yàkkaaw li ko naan bu diw ñëwee loolu la may àndaaleel yàlla nu yàlla mos ci lool soo ko defee nii sax dangaa tas yaakaaram waaye nee na képp ku rax loo xam ne danga ko jëmale si woon ci moom saw yaram araam na aljanna ñu bari bu ñu ñaan nit dañu naan yàlla na yàlla def saw yaram araam sawara loolu mooy ñaan moom ñoo ñaan gi ñaanalante waaye yàlla na ne ku rax digganteem ak leneen ci say jëf wala ci say wax saw yaram araamal na aljanna xaraam na aljanna maanaam ajjana du ko teg ba du teg bët yaramu kooku yàlla nu yàlla mos ci lool wax na yonent bi it sallallahu alayhi di ko nettali ay jàmbaar yu fi jaaroon yoo xam ne ba muy lim ba agsi ci kam mujj tudd daf na yonent bi ñooña mooy ña jaar ca yoon wa nanga ne coow topp ca ñoom waaye nee na la tax kat mu roy loo yonent bi ñooña ak yonent bi ni mu toll sallallahu alayhi wa sallam nee na ko ñooña la ñuy baax baax ba ma royloo lee leen ne leen ne leen nanga topp ci seen jéego ku ca amoon lu muy rax digganteem ak lim siq ak yàlla yàlla duutu xool ay jëfam lu mu bari bari ak lu mu yàgg-yàgg nee na ko yow yonent bi it man maa yónnee ci yow di la xamal ne li ko tàmbalee ca la la jiitu woon ba lii ñëw ci sa gannaaw lépp képp ku ci raxati ay jëfam lu muy tudde yàlla ak dara yàlla amatul ca loola soxla su ëllëgee lu muy yenu la di làng-lànge nga moom te du xam fu mu ci mag moom yàlla ñu ci yàlla musal euh, rax ay jëf nag su fekkee li yàlla wax ne moo tax ñu indi nu fi muy def ko muy yàlla teg ko palaasam ba noppi di jëfe ay ndigalam mooy jaamu ko bu fekkee lim gën a di gën a rëy ci lim digle mooy loolu mooy def ko jox ko palaasam teg ko palaasam donte amul fenn fu mu xaj waaye daal cër bi dox sa digganteeg moom xam ne moo bind ci coobareem ak kattanam mooy dundal mooy rey moo xam lu nekk te dara ump ko place boobu euh, li gën a rëy ci lim digle mooy benn teg ko place boobu te di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem su fekkee nag loolu moo gën a rëy ci li yàlla digle ne loolu moo tax mu bind nit ñi ak ñi nga xam ne duñ ay nit waaye ay jinne lañ tudd euh, lim gën a bañ yomb naa xam mooy kuy wutal yàlla naan fii la xaj fii la nekk fii la yam fii la tàmbale la ci des keneen dafay tàmbale keneen keneen dafay keneen keneen a yaatu ba ba toll fa yàlla yam mu tàmbalee fa yam yàlla noonu yàlla musal ci boobu pas-pas pas-pasu rax yàlla ak keneen walla leneen nag ku koy xool ci nam tuddoon bu njëkk ci ñoo xam ne dañuy yet dara ci ay bant tudde ko yàlla di ko rayal ay gàtt di ko reyal ay gudd muy gëléem ak i bokkam euh, ku koy xool mën nga ko bañ a gis mu ne fàng waaye jamono ji nekk ak na muy dikkee ci nit ñi ak ci nit ki euh, jamono ju nekk mbub ma muy sol ak na muy yeesewaat di topp jamono ak nit ci jamono ndax nit ñi ñooy jamono am na ñoo xam ne dañuy rax seen jëf ci bu ñuy bëgg dara bu ñuy bëgg dara dañuy bëgg yàlla lool ba mu jaral lu nekk waaye nag danañ ko rax a rax ba yàlla ci waxin su doon ràññale lam ca moom dëgg-dëgg ak lam ca jox keneen yàlla du ko mën a xàmmee yàlla na nu yàlla musal ci boobu bëgg-bëgg rawatina nag ak jaamu yàlla Euh, bu dee bëgg-bëgg bi danañ dégg sax ci waxeenu jamono kuy wax ne daa bëgganteeg diw lool ñu ne ko mbaa diw mi ngay bëgganteel miin nga ko mu ne bëggante nii rekk la nag ndax bëgg moom kenn defatu ko léegi ni ñuy bëgge mooy da ngay photocopie sab xol ak sag bëgg jox photocopie bi ki nga bëgg nax garder original bi loolu nag mën naa dox diggante nit ak moroomam jaamam ndax mën na ko bañ a xam mën naa bañ a xam ne copier nga ko jox waaye loolu xel xalaatul mooy dox diggante nit ak boroom bi tabaraka kaw taala dañ koy bëgg yam ca képp wala maradeem si nit ki def leneen waaye topp gi it ci di jëfe ay ndigalam it léeg-léeg nit rax koo rax ba dootoo xàmmee yow mi xool li ci yàlla moom dëgg-dëgg ak li ci kooku sedd keneen wala leneen ndax ci misaal bari na nu ko mën a xame danga gis ku woote ba nit ñi dikk te moo ne ba mu leen di woo danaan kuy wax ashhadu an laa ilaha illa waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah woo naa la am ñu wuy ji ñoo xam ne xamuñu ko sax waaye ñoom moom lam lam woote moo tax ñu jóg waaye buñ ñëwee du am wenn lay ci la muy woote wum naan alxuraan nee na wala yonent bi nee na wala bu dee ab murit la mu ne Sëriñ Tuubaa nee na te mu wér du ko am waaye nag boo xoolee jotaay ba rax ga muy rax ca ngay xame ne boo amee rooguy dund te nga fiir te amug yëg doo def lu dul daal di jóg rek dem ndax dañoo rax jaamu yàlla gi ak leneen loo lu kenn xamul lu doon te lu kenn xamul lu mu doon nag nit wuru ca séentu pay gu ko ci yàlla di fay ndax yàlla si boppam du xam lu mu doon ak li muy xam lépp waaye léeg-léeg nga dégg koy ñaan koo xam ne euh, ñaan a fi gën a jafe ndax yàlla moo santaane ñu ñaan bu yàlla santaanee ci alxuraan nag bu ñu jëlee yax bu alxuraan bi kese kese te xóotalu xóotaluñ ko dañ naan kon ñaan lu ab jullit sàggan sàggan bu xàmmee bala moo faatu war naa ñaan wenn yoon bokk lu mu gàtt gàtt waaye ñaan moomu li ko yàlla digle digle daf ca gàllaat lu ko jafeel lool ndax nee na léeg-léeg ngeen ñaan loo xam ne gënut ci yéen léeg-léegi ngeen bañ ñaan loo xam ne moo gën ci yéen fuuf waaye nag euh, wolof day wax ne ci sump dana tax sump wex te fekk sump bu neexee day saf suukar waaye macc daqaar dana tax daqaar wex dana gis koo xam ne day fas yéene jóg jëfe ndigalu suñu borom di ñaan ni ko yàlla diglee ni yonent bi neel nit ñi jaam ñi yàlla ngi nuu rek booy ñaan rek dana ko dégg te dalay daal di tontu fa saasa may la la nga bëgg jër sa dem nag dëkk ak dëkk wala barab ak barab ndax foo nekk rek boo ñaanee ma nga ci sa pegg dina ko dégg waaye léeg-léeg ñu tax ci loo xam ne nag mooy yàq euh, connexion bi ndax léeg-léeg nit yor connexion muy di connecté ba mu yàgg mu dugg ci menn pax fu fu xure connexion bi nag meng te fekk mi ngi tàkk te connexion bi mu ngi tàkk kon am na lu xam faw day jógaat ba taxawaat fu kawe foo xam ne connexion ba ak na fa ñu door ko mën a jot mu door a mën a jot du yomb xam na waaye danga gis kuy ñaan di ñaan ba ci digg mu yàq ko ku xool mbind sëriñ bi danga ci gis ne ku xam yoonu ñaan la sëriñ bi nim doyloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fam ko teg nee na njabootam gépp ak lim am lépp yonent bi jaral na ko ko buñ ne woon na fi yonent bi dañ koy yóbbu waaye su ngeen joxee alal mu des fi nee na dana joxe lim am lépp ba bu laalee bu laajee bakkanam bi mu joxewaale ko nee na it su yonent bi ndox dox sallallahu alayhi wa sallam bay bëgg joge ak dëkk moom sëriñ bi day tëdde ak wet fab dégg gi teg ca lexam ba benn ba yonent bi jaar ca benn lex ba jàll dara bañ koo laal nee na yonent bi ko gënal ak njaboot gu muy am moo ko gënal alal waaye taxut nag buy ñaan ya buy ñaan ñaan yonent bi yàlla lay ñaan danaan yàlla yàlla nag ma may nangam maa ngi lay ñaan nga may ma nangam ci dara yonent bi yàlla ci boppam moo aw yoonu ñaan ci bu ñu julli ci yonent bi bu ñu julli ci yonent bi yonent bi lañ yéene xéewal gi waaye dañuy jaar ci yàlla mu wàcc ci yonent bi dañuy jaar feneen waaye ci yàlla lañuy jaare nag sallallahu alayhi wa sallama inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi sallu alayhi wa sallu wa sallu alayhi wa sallimu taslima yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima laajoon nañ yonent bi ni ñuy jullee ci yow kayfa salaatu alayka ya rasulallah mu ne da ngay wax ne allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama barakta ala ibrahima innaka xamidun majid kama sallayta ala ibrahima innaka xamidun majid dellu wax ne allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima innaka xamidul majid sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp dafa am fu muy jaara ji waaye yàlla ca yàlla moo tax léeg-léeg nit yàq ak ñaanam léeg-léeg it nit bëgg dara lu munta ñàkk jóg di ko wuti yàlla yor ko waaye lay tax lu ca jot te day yaakaar ne moom noteel nañ ko ko ci ay misaanu xasanaatam yàlla nañ ci yàlla musal waaye la koy yàq mooy day jàdd jàddaan fu bare bari te du ko teg fenn waaye léeg-léegi nit jublu ci nàngam te sëñ bu mag bi ko fonkoon loo jublu ci nàngam ji ngay def la wax na genn góor gu ñuy wax sëñ Demba Kebe ne ko di def dara te jubluwoo ca dara fasul ca dara mi ngi mel ne di ñaw di boros rek te fasoo catul wëñ ga soo roccee léppay demandoo da ngay defee nag jàpp na te fekk jàpput waaye nag nee na ko la nga cay fas dangay jël yàlla seere ne ko lii may def yow laa ci yaaka yow rekk a tax ma di ko def soo ko dee bàyyi nga ne li ma ci fas mooy yàllaa ko tere ma di ko bàyyi su boobaa da am bu dee lee la da ngay am bu yool bu dee lii bàyyi da nga ci amub yool moo tax jullit ab jullit war nay sant saa su nekk ci ngëneel li ko yàlla defal boole ko ci xeeti Seydina Muhammad mi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam pas-pas bi wóor set wicc ci loxoom la ko yàlla jaarale muy lu lu nit ki fas te kenn wane ko ko waaye li muy wane muy tudd ay jaamu yàlla yit yonent yi ba ci yi ci yonent bi indi moo gën a yomb yépp yi ma soon a ñëw te moo ci gën a set moo ci gën a nite bu dee ay jikko itam jikko yonent bi jàngale su ko àdduna bi doon dund jërut ñuy defar gànnaay jërut ñuy defar ay kaso yi nga xam ne coow laa ngeen gàññ si réew mi te danañ ci dikk ci yeneen i xutop moo tax nit ñëpp war nañoo di taxaw léeg-léeg topp xew-xew yi am na solo lool waaye nag léeg-léeg it lii nga xam ne moo taxoon yàlla yónni ay mursal mursaloon yépp ak anbiyaaw yi it muy nañ teg yàlla palaasam bañ ko war a teg saa su nekk daa war di yeese ka yeesaat ndax li koy dugg di ko raxte bokku ci euh, moo tax ci biir taalibey murit yi gannaaw bu jullit yépp jàllee am na nos yu ci nos yu bari yoo xam ne ñii ay daaira lañ ko tudde yi tudd ay daaray tarbiya yi tudd ay association yi tudd ay fondation waaye bu mu ci mën di doon ak ONG bu mu ci man di doon su fekkee ñi koy tuddoo ci biir sëriñ bi lañ nekk seen daje yi ñu daje ak mbooloo ya jàngale pas-pas bu dëgër te wér war na caa am wàll wu yaatoo yaatu ndax xam fi ngay teg sa tànk dana tax fan boo ko tegee ci biir fa nga koy tegaat tànk yi mën na gën a sore dox bi gën a gaaw loola moo yoon wu leer yoon wu leer bu ci ay làmp takkutit boo cay dox doo xalaat dara ndax xal nañ ko ba mu leer nañ moo tax ñuy ñaan yàlla mu defar mbiri jullit yépp te génne leen ci rax bi ñuy rax li yàlla moom ci ñoom te bokku ca te saa su nekk mu dañu wan aw yoon wi nga xam ne mooy wi gën ci noonu te buñ ci jaaree dañ àgg fañ bëgg a àgg yàlla ñu ko yàlla jàppandal moo tax yonent bi sallallahu alayhi tënkoon ko ci lu gàtt nee na képp koo xam ne faatu na ñu xool ay téeréem ab registre nit kuy dund ku nekk yàlla nga ko booleeg ñuy bind li muy def lépp bis dana ñëw ñu ne ko bàcc ci digg mbooloo mi mu jàng ñépp dégg te su koy jàng ni ko nit ñiy dégg dana wuute ak nii may waxe mooy gën a kawe fii ma taxaw mooy gën a xumb ni may wax te du mooy dara lu ci nekk na na amoon la koy wax ñëpp yi dégg ñi waroon xam xam ñi waroon xam xam mooy fi muy wax ne yow ma tubla sarair nee na ku fa ñëw nag ñu xool registre bi mu set wicc ci rax lam façon diggante ak yàlla rax dara lam doon jëf te yàlla santaane ko rax dara moo xam muy lu ko yàlla gàll wala muy lu mu coobare wa di ko def tam dagan suñ xoolee lépp set wicc weex tàll nee na ay ayca dañ koy xool rek jox ko ni takk der yi def léeg ci aw yoon xool kayit nit mu walaabal ñu tàllal ko daal di koy sali mu mu départ léegi-léegi ñu xool kenn ay kayitam muy nakk nakkal ñu ne ko droiteel wàcc tali bi noppee guñ ci yow yàlla na yàlla musal ci loola mooy koo xam ne dañoo xool ay téeréem ay kayitam mu rax ba duutu xàmmee la mu waroon def ak la mu wutoon def moo tax sëriñ bu mag bi wax ci ba boobu nga xam ne dañ koy jàng kore ak tabaski waaye xutba boobu dañ ko waroon di jàng ajjuma ju nekk ci jàkk yépp di ko leeral dem nañ ba gàllankoor yi gën a rëy bokk na ci dañ koy def barkeelu danañ ko jàng ci tabaski ak korite waaye buñ noppee dañ koy jàng noonu rek wax seen waxe bopp waaye dañoo waroon di leeral bu baax a baax a baax lim ci wax lu mu doon bokk na ci lam ca wax nee na mi ñuy ko ñun ñépp ñu taqoo bañ a tàggoo ba faw ci liñ ñu tànnal moo xam muy ay jikko ak pas-pas ci jikko ak pas-pas ak ay wax ak i jëf te yàlla tax nañ lu ci nekk bu ñu bëggee jikko yu rafet nañ dem laaj yan jikko la lislaam tànnal jullit bi mu jikko woo ko ana yu ne si moom te war a dañ bu def taalibe mu ne ana nangam ni ko sëñ Tuubaa defoon lan la war a fas ak lu mu war a fas bu dee li mu war a fas mu fas ko ba mu dëgër lam fasoon te du noona mu fecc ko sànni ca àll ba bu dee ay wax mu xam fi ay wax di tàmbalee di tegu ci ndigalu sëriñ bi fu mu yam mu yam fa su dee ay jëf mu xam fi sëriñ bi tàmbalee ci ay jëf ak lim ko digal ak lim ko tànnal fu mu yam mu yam fa bu ne woon maa ngi leen di fàttali it ngeen bañ tàggoo ak loolu maanaam liñ ñu liñ ñu tànnal moo xam muy pas-pas wala jikko wala wax wala jëf waaye dafa yemale fa wax ji tàmbale wax jeneen wax dafa digle yaari yoon ne maa ngi leen dénkaat ngeen bañ a tàggoo ba faw fee daf na ngeen taqoo fii daf na ngeen bañ a tàggoo ba faw ak liñ leen tànnal ndax ku tàggook moom kat yoon ba jëm day dem ba mu yàgg mu tàmbalee sekk ay dégg déggum sekki bu tegaatee tànkam dégg ne ko ci ay yool topp ko yool mooy jamono yi dugub du ñor kuy dox ci toolu dugub ya koy topp te bu dàqee ba defee na ci nekk ya ko sam gën a bari mën naa am sax duñ màtte waaye dañ koy lëjal bit dugg fu ne ci moom walla lu mel ne ay ngootoon nga xam ne moom daanaka gis xool ko gis ko sax yombut waaye day lëjal nit ki ba nga xam day mel ne bu ko wàccu day dee waaye nee na it saa su nekk day am stress xol bi saa bu ko xoo seetkati xol yi xoolee day gis muy fëgg lu bari ñu ne ko jox garab yi kalmetation bi ndax lan daa daa tànn leneen lu bokkut lañ ko tànnal rek te bokk yi ku yem ci liñ ko tànnal du juum mukk lii lañ ma waxoon def naa ko moom kenn du ci dëkk di juum xanaa kay ana li ngay def foo ko teg ngay ŋaaka ñetti njuumte yomb na ca moo tax sëriñ bi ne maa ngi leen di dénk ngeen taxoo ba faw ci lañ leen tànnal ni lii mooy pas-pas lii mooy jikko yu rafet kuy wax nii ngay waxe yam ca kuy jëf nii ngay jëfe yam ca di leen dénk ngeen bañee tàggoo mukk taqaliko mukk wala lu leen di jéem a taqale mukk ak liñ leen tànnal li feeg yéen a ngi dund ndax jéem ca tegg sa tànk lu néew néew fa yóbbu nit ki mooy métit yu du jeex ak njàqare lu du dakk te ki nga xam ne daa yóbbaale njàqare te fekk mi ngi dund ci kaw suuf bu ñu sañee yaakaar ci moom njortu ëllëg it njuumte mën naa am nee na it ngi ñuy maase di tere ñuy dox jëm ci lépp loo xam ne njariñ nekku ca ndax nee na képp kuy dox jëm ci loo xam ne njariñ nekku ca te fekk tànn na lañ ko fa njariñ nekk su ëllëgee lu mu taseel ñum taseel ñu ngoor yanu ba gis gan fam jëm defe ni bu demee dana yanu gaa yi it bu demee fekk yan nañ ba noppi la fa newoon jël nañ ko yàlla noonu yàlla musal ci loolu nee na it suñ demee ba jamono wut nangam xew ba ku ko amut dootoo sa wax muy taraanga rek taraangay àdduna nee na ku jóg di wuti taraangay àdduna na fas yéene def yóbbalam wa taq taqwa nag mooy pas-pas bu dëgër bi nit war a fas ab jullit ak lim war a jëf digganteem ak suñu boroom te fexe ba la yàllay tere bu ko ci kenn séen ndax nee na foofu ku fa toog mbooleem lu nit ñi wuti dana jóge fam fa ko nit ñi doon wuti dëgmal si la day mujj sax yow bu la yàlla dimbalewul dëgg nga am gàllankooru sax ca la nga saxoon ndax lépp day ñëw ne gàññ gàññaaram moo tax bis ñëw nañ ci moom sëñ bu mag bi benn waaye ñëw ne ko loolu sëñ ma Lamine Diop daga nettali na ko ci téereem indi pañab guro bu mag boo xam ne dañ ko ko jàppale ndax yéene indi sëriñ bi guro rek jakk-jakkee ko teg ci kanamam wetti aw ñaq di àppaat sëriñ bi ne ko lu mu doon mu ne ko gure la mu ne ko ana la si jublu mu ne ko dama la ko doon andi ndax damaa dégg ñu da ngaa bëgg a mu ne nañ seeti fu gura ne ci kër gi ak dëkk bi ñu génnee ko dëkk bi bu ma kenn askanal lu may bëgg lu dul yàllaa ko bi yonentam soo gisee mu laaf ci yonent bi nag yonent bi la yàlla ne ne ku ku ko yàlla bëgg la in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dunubakum moo tax mu laaf ci yonent bi bu ma kenn askanal lu dul bëgg yàlla ak kub yonentam moo tax euh, ki teg tànkam ci taqwa te mooy fas lim mu war a fas di wax li muy war a wax di jëf li muy war a jëf jikkoo lim mu war a jikkoo te yàlla rekk tax ku ci sax dana mujj lépp lu nit ñi wuti ci lu baax dana ko wutal si yàlla na ko yàlla jàppandalal te xeer ñu ngi teg suñu tànk ba fow ci diine diine lislaam Euh, bari na lu jamono indi lool te bu nit muy tuut mu mujj soppaliku diine lu bare bari la xaalis bokk na ci ak ki bokkam xaalis ak yami indi wala yaa koy indi ñoom ñëpp ñoom ñëpp yàlla nañu fi yàlla musal moo tax ku fas yéene teg tànkam ci lu muy def yàlla nee na yem ca kepp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yem ca kepp boo dee taalibe nga ne lu ca Sëriñ ba waxoon te li sëñ Tuubaa waxut bariwut mus sa noppi ñam dëkkaloon kaay leen wuyu rek lañ doon liggéeyee muy wax di wax ba am na si ñoo xam ne liñ mokkal ci sëriñ Tuubaa nee na ku ko doon seet ci ab lim dana bari lool am na ci ñu yàlla may mën nañoo toog yetti waxtu yoo xam ne lu ñu wax duñ ca delluwaat te la fa la fa la leen fa ñoom jeexul te loola ñam yi nekk ñam ne woon ci ñoom soo leen xoolee xam ko ci ñoom ndax dañuy am leerug jëmm ndax teg giñ teg seen tànk ci siraatal mustaqim waaye ñun ñi nga xam ne it fekkuñu ko fii it amuñu aw lay ci buñ ko fi fekkoon ndax mbind moo fi gën a mën a yàgg moo tax waykat waxoon ne yow miy xool mbind mii nga jàkkaar lool ñaanal ki ko bindoon ñaanal ki ko bindoon nag ñaari anam la ñaanal ko yàlla yërëm ko ndax lam bind doy na waar lool te am na ñu ca topp ba alku waaye am na ñaan googu dal nam xel yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla wallu yàlla na ko yàlla dim ndax mbindam bari na ñu si jaar ba defaru yàlla boole na ci sëriñ bi kon lii mat a def ak li mutta def la sëriñ bi waxoon waaye jamono tey li mat a def mooy dem jàng ba am xam-xam ku jàng ba am xam-xam kenn du ko mën a nax kenn du ko mën a yóbbaale kenn mënu ko théoriser ba bàyyi loo ko la mu nekkoon di ko dugal ci loo xam ne doo xam lu mu doon yow mi ko ca woo yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te musul ñu ci seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri l-muslimina amin Touba Quincaillerie Générale mu ngi fii ci cité Kër Damel bu dee da ngeen yittewoo lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi ñëw leen Touba quincaillerie générale mën ngeen leen a seeti tamit ca 84 ak ca 65 rue Ngalandou Diouf